alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار dina tatagal ci turi alxalifa xaadimul ummati cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass tatagal boo xam ne lii tekke kaweem ci moom fekk gi nga fekk Cheikh Mouhamadul Amin fekk si la fii ànd ay rakkam pour ànd sëriñ bi mu ñëw usi ngan gi nga xam ne taalibe yi ci Dakar ñoo ko oo mu nekk loo xam ne luñ namoon la te dëgg-dëgg wane nañ ko wane nañ niñ soxlawoo ñëwam fii ci Dakar waaye bi ñëw tim fekk si nañ si say njaboot yoo xam ne dëgg-dëgg doom lañ ci sëriñ bi waaye nag taxaw nañ ci côtéem ak wane ne dañoo ànd ak yow te xam yow tim fan nga teg sëriñ bi ñoom it ñi wane seen ngóora yépp ci lépp loo xam ne nii dafay yombal yoon wi mën nañ cee cité Mouhamed Ndiaye rahma mu nga ne toog mu ngi ne dend ak suñ jarbaat Seydi Ali Dem nga xam ne eh, sët la ci sëriñ bi waaye ci sa jëwriñ la ndax ambassadeur la nga xam ne fii tey moom moo fi gàttandu sëriñ bi uutu la ci loolu ak doomi mbokkam yëpp Cheikh Baye Hadi ngi ne Seydi Ali Cissé doomi El Hadj ñoom ñëpp pour ñëw rek pour teerule la sëriñ bi xam nañ jamono ni mu tëddee ak yéen tim seen waxtu naka la tënkoo waaye bu taxutoon ak loolu bu fekkoon ne da ngay fekk fii nit ñi ci dayo bi nga am ci xoli sëriñ bi kon loolu dafay nekk jafe-jafe ci ñëw bi waaye dañ la tàllalal yoon mu nga xam ne mu ngi jëm ci sëriñ bi muy yoon woo xam ne tim mu ngi tàllalu jëm ci njaboot gi yëpp di la gërëm ci sa taxawaay ndax gis nañ ñi ànd ak yow seen taxawaay bi nga xam ne moom lañ am ci sëriñ bi ndax dafa am loo xam ne ñun moom rek lañu am muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu mu jëmmal loolu jiite njaboot gi képp ku fexe ba am ko rek danga am njaboot gi yëpp te dëgg-dëgg yaa ngi ci eh, bay sawaar yal na yàlla gën laa dimbali ah démb ku gis jotaay bi ak taxawaay bi nga xam ne moom la am pour askan bi yëpp ndax tur wi mu tuddee boppam. nga xam ne moom la tànn mu gënal ko mooy ki nga xam ne mooy serviteur de umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu yëpp pour jéegu jëm ca euh, tànk yi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim radiallahu anhu doon dox koo xam ne dem nga ba am àddina yëpp am dëgg-dëgg sa réew du la të euh, ñi ngi rafetlu sa ñëw dañ la déglu nga wax buñ paree ñu déglu sëriñ bi mu tontu ay kàddu ñaanal la sof ko ci ñaan yi nga xam ne dëgg-dëgg def na ko démb euh, joxe ay message yoo xam ne sénégalais bu nekk mën nga cee gis sa bopp waaye sénégalais bu nekk tim mën nga cee gindeekoo ndax fàttali na nit ñi ñun ñooy ñan ak fan lañ jëm ak lan lañ am ak Sénégal lu mu tekki ci ñun ak xamtim kenn ku nekk ban taxawaay nga war a taxaw bala ngaa laajte lu président def bala ngaa laajte lu keneen def war ngaa laaj sa bopp yow loo def moom nag loolu moom mooy waxam jug na buurin boo xam ne jamono waxtu bu soppeekoo rek da ngaa war a buur buur bu méngoog jamono jooju buur na o mbokk yëpp oo taalibe yëpp na nañ leen dellu ci nañ leen dellu ci tool yi loolu defe naa kooku ku ko wax yaa ngi dimbale se gouvernement ndax yaa ngi tëral yoon woo xam ne buñ ci àggee danañ am auto autosuffisant danañ am su suñuy tib mu jugee ci suñuy loxo te benn way benn xalaatkati arab daf ne sa xalaat bi feeg sa tib bi jugewul ci sa loxo bi sa xalaat bi jugewul ci sa bopp bi te olof yi wax nañ ko kon président loolu ci gàttal moom rek lañuy jiital ci li nga xam ne mu ngi ittee sëriñ bi te am na itte yu bari waaye lépp dafay delluwaat ci ci askan bi lépp tim dafay delluwaat ci dimbale liggéey bi nga xam ne nii moom nga bëgg euh, pour Sénégal jëm ca kanam defe naa ne buñ amee kilifa yu bëri yu mel noonu liggéey bi dana gën a yomb nekkin bi dana gën a yomb jàmm ji dana am ci réew mi ndax réew jàmm la boo xam ne àddina nawewuñ li lu may jàmm jooju ñi am jàmm jooju nag kenn jarut ñi sànni ko kenn jarut ñi fàtte ko kenn jarut ñi yàqu ko ñu ngi lay jox euh, kàddu yi di la déglu buñ paree ñi delloo kàddu yi sëriñ bi euh, maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziyaara bu ma tibbee sama xol jëmale ko ci sunu sëriñ Sayid Mouhamadul Mahi Ibrahima ñas te xalif général de Niassène di jël nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu ko teg sa loxo yu tedd yi ngir nga jottali ñu ko njabootu Maulana Cheikh al Islam di ko jottali mbokk taalibe yëpp ah, maa ngi nuyu sa rakk Seydou sëñ Mouhamadou Babou Lamine ak ay rakkam yi fi teew yëpp te porte parole sëñ May Cissé wax ko dañu am mbégte nag lool bi nga ganesee waa Ndakaaru capital bi am ci mbégte ngir ngëneel yi am ci déplacement boobu ngir xéewal yi am ci déplacement boobu démb suñu mbégte gën a ti yaatu bi ñu déggee message bu am solo bi nga def jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci jeunesse su réew mi ah jëmale ko ci population yëpp ndax réew dina toll foo xam ne boroom xam-xam yi boroom kàddu yi kilifa yi ñoo war yëkkati kàddu gindi nit ñi teg leen ci yoon yoonu lislaam yoonu jàmm yoonu salaam te ñas sëñ bi loolu lañu gis nga def ko muy njëriñ bu wër lool njëriñ bu tar lool ci Sénégal amoon nañu rendez-vous maanaam altine war naan la dalal tatagal la ci palais de la république ndax da ñëw ci capitale bi muy mbégte ci man waaye dama ne balaa may xaar ba nga yegg si dinaa ñëw ba fii fekk si la fi nga ne ziyaara la dama la daan siyaara balaa ñuy toog ci pale bi war naa ñëw ba fii ci yow siyaara la eh, sàkkuwaat si yow ñaan ñeel réew mi ñeel lépp loo xamante ne ay sumb ak mébét yi ñu am ci Sénégal loolu laa jàpp suñu diggante ne moo gën a rafet ba ma toog rek xaar ba nga yegg si kon bu ma la mënoon fekk si sax Madina Baye danaa <laughs> ñëw balaa ngay ñëw Euh, ci pale bi kon maa ngi lay féddalewaat sëñ bi suñu taxawaay sa wet euh, dégg naa xam naa yenn si mébét yi lu mel ne tool bàyyi incha allah boo ñëwee altine daan ci gën a waxtaan ndax euh, mbéy mi ci la njëriñu réew mi nekk mbéy nag dañ koy moderniser maanaam dañ koy yeesal ci ay xarala yu bees lu rek gopp ak ileer loolu dafay metti fi jamono tollu tey kon faw ñu jox ay tracteur ay machine yoo xam ne dana yokk liggéey bi wàññi coono bi te am-am bi mën a yokk loolu nag mooy li ñu yëkkati kon yow boo yëkkatee décision bëgg a joxe ndigal ci tool yi faaw ñu taxaw sa wet ngir jàppale la ci liggéey boobu ndax mooy li may woote pour Sénégal moom boppam ci wàllu dund te réew mu mënalul boppam ci wàllu dund du mën lu bare ci boppam kon nag yal nañu yàlla may. ñun itam ñu taxaw sa wet ci fànn boobu te ak yeneeni mbir yi nga xam ne am na dinaa ci waxtaan ak gouverneur bu kaw Kaolack ak ministre de l'intérieur ci dëkk bi ak yaatuwaayam loolu yëpp ñu nekk sa wet incha allah naa boo ñëwee altine dinañ ci waxtaan bu baax a baax waaye lii nag pré la ndax mënuma woon xaar ba nga yegg si ñaas jërëjëf kon maa ngi lay nuyu di la ziar ànd ak délégation bi Mahmoud Saleh ministre d'état directeur de cabinet ak euh, maa ngi nuyu itam sa sët suñu ambassadeur Alioune Cissé dem di nuyu Mon Ndiaye Rahma bi nga xam ne yàlla def na tey moom lañu tànn jiital ko ci Kaolack ñu xam itam ni nga ko si jàppale ak di ko ñaanal euh, ñu ngi lay sant cant ko amul àpp sëñ bi. monsieur le président ñu ngi suñ kontaante amul fu yem ci tànk yu yiw yu jekk yi nga ñëw seet si sa njaboot. Euh, ñëw seet si say citoyen yoo xam ne fu nekk ñu ngi fa nekk ak yow itam yow itamit fu nekk yaa ngi leen fa nekkal bon suñu relation yi suñ suñ demlante yi lu war nekk la su fekkee temps bi mën nañu koo may ndax sa liggéey ci Sénégal amul kenn ku ko mën a werante ne liggéey bu dolli Sénégal la parce que bu liggéey dolli Sénégal ba ñun ñuy am yaakaar ci tey bañ a seet ne mën nañoo defar benn tool boo xam ne mën na bokk ci liy développé économique Sénégal dëgg-dëgg buñ ko gis toon ci duñu am yaakaar boobu ay itte boobu ne mën nañoo réaliser loolu ndax gis nañ ne bëgg nga sa réew am autosuffisant moo tax fi mu nekk ni ma bëgg ñun ñëpp ñu ànd góor góor dellu ci tool yi ndax fi mu ne xew-xewi àddina bi di xew lii xew La ak lii xew feneen yàqu-yàqu yu bëri yooyu ñooñu yàqule yooyu dëgg-dëgg dina am jamono yoo xam ne dootuñu mën a yóbbu ci réewi jàmbur yi donc bon war nañoo préparer suñu bopp ba dañoo àgg ci jafe boobu loolu moo tax ñu war ñu war a dellu ci tool yi loolu war tax ñu war a bay suñu suuf parce que bu ñu ko bayee rek dinañ am te loolu gis nañ ne yaa ngi ciy ñemeloo nit ñi yaa ngi ciy encouragé nit ñi te loolu lañ soxla suñ président taxaw ak ñun nekk benn baykat comme ñun dëgg-dëgg bu ñu taxawee ci kanam yàlla yàlla dinañu yërëm te dina ñu may liñ bëgg moo tax sa taxawaay ci Sénégal taxawaay bu jekk la taxawaay bu jekk la nit ñëpp yëg nañ seen bopp nit ñëpp am nañ yaakaar keroog wax naa leen ne daanaa am ay xale yu daan ñëw toujours ñaanal ma ma génn ñaanal ma ma génn mais léegi monsieur le président xale yu bëri yu ñëw ci man ñaanal ma dama am projet nangam ñaanal ma dama am projet nangam loolu ci sa temps la am ci yow la xewee bo ci yow la ko xale yi gisee moo tax ñu am yaakaar yooyu bon mënuñoo doylu ci yow ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla gën a sa taxawaay yàlla gën a leeral sa xol yàlla gën a dolli guddal sa loxo loo yootu mu agsi ci Sénégal yàlla sàmm la sàmmal la sa peuple ñun tamit comme population bi taalibe Baay yëpp ñoom nga toogat ah ndax maay seen maa leen représenté bon ñoom ñëpp itam maa ngi wax ci seen làmmiñ ne président ca kanam ñu ngi lay jàppale ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi lay dëgëral euh, yal na yàlla taxawu la yal yàlla dimbale la yal na yàlla yëkkati Sénégal yal yàlla dolli Sénégal yal na yàlla may Sénégal li mu bëgg yëpp jaarale ko ci say loxo wax naa la ne président de Gaulle nee na bàyyi dama bëgg nga ñaanal ma Allemagne yi génn Sénégal euh, France mais dama bëgg nga ñaanal ma mu jaar ci sama loxo dama bëgg nga ñaanal ma mu jaar ci sama loxo yow tamit ñu ngi lay ñaanal jaag sa équipe teraanga Sénégal bi yàlla dencal Sénégal yàlla na ko yàlla jaaral ci sa loxo mu génn ndax ndax ba teraanga ngi fi barke ngi fi yëpp a ngi fi waaye loxo yu set yu se ci di jaarale bu génn yal na doon sa loxo yow ak sa équipement yi nga xam ne yéen a ànd jërëjëf ci euh, gendeeku bu rafet bi nga xam ne ñëpp kontaan nañ.